si dernier info yi kii di Fabrizio Romano mi ngi xam le ni ginnaaw bi nga xamee ni kii di Kalidou Koulibaly day jóge fii ci Napoli dem fële nga xamante ne nii moo di Chelsea instant bi Napoli nag topp nañ défenseur u Paris bii nii di Abdou Diallo te équipe bi nii di Paris na sax bëggoon nañ jaay kii di Abdou Lahad Diallo léegi waa Napoli nag bëgg nañ kii nii nga xamante ne nii moo di Abdou Lahad Diallo gannaaw kii di Kalidou Koulibaly day jóge foofu dem ci Chelsea te salaire bi moom moo leen leeragul waaye ñoom lu ñu paree pour fayi mi ngi toll ci vingt million d'euros ak lii di vingt cinq million d'euros te jamono ji kii di Kalidou Koulibaly officiel na day dem fële ca Chelsea ginnaw bi nga xamante ne nii kii di Fabrizio Romano moo fësal yooyee xibaar moom mii nag di Kalidou def na li nga xamante ne nii moo di visite médicale ba pare kii di Kalidou Koulibaly ginnaaw bi nga xamante ne nii day dem Amérique ba pare ba pare day ñëw fii nii ca Chelsea def li nga xamante ne nii mooy finalisation bi te saison bii nii kii di Kalidou Koulibaly foofu la koy fubalee